wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana rasulillah wa alihi wa saxbihi wa man walah rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi 2STV yi mbokki origine fm 88.4 ñu àndaat ak yéen seen jotaay yu daara ji ñuy tudde tafsirul quran ngeen ci ànd ak seen mbokk daara Abdoulaye Gaye di leen nuyuwaat bu baax di leen ziyaarawaat di leen baalo xaq te di leen ko baal di ñaan suñu borom subhanahu taala mu def ñu dëgg dëgg jullit ay dellu rek di ko ñaan xéewal si ay ñu koy wujji yàlla nañu yóbbaale suñu iman ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam ni ñu ngi woon ak yéen seen saar bi di suratu nisaa yi jotaayu tafsir bi ñu mujj def ak yéen borom bi muy aaye bi mu ñu tàggoo woon mooy def ñu doon wax ni su ngeen moytoo bakkaar yu rëy yi ñu leen tere ñu faral leen yu ndaw yi waaw mun teg ko nag ni euh, mu dugal ñu it ci dugguwaay bu tedd te yiw loolu la suñu borom subhaanahu wa taala mbokk yi boo demee ci Abdullahi Ibnu Abbas day wax ni bakkaar yi nga xamante ni mooy yu ndaw yi yu mag yi mooy bàkkaar bu yàlla daf ko jeexale di koo def safara la jëm wala merum yàlla wala rëbbum yàlla wala mbugalum yàlla waaw nee na yooyu mooy yu mag yi moo tax yonent bi doon na lim as-sab'ul mubiqaat juróom-ñaari xeeti bàkkaar yooyu nga xam ni bokkaaleeg yàlla nga ca macha allahu njibar mu nga ca macha allahu daw ci bisum xare mu nga ca xas gor mu nga ca macha allahu ak yu rëy yooyu ak lekk riba ak seeni kem boo ñuy juróom-ñaar mu ni moytu leen ko moytu leen as-sab'ul mubiqaat yooyu ci bakkar yu rëy la ak am na yeneen kabair waaye eh, lu mel ni njaaloo ca day bugg ca kabair ya macha allah lu mel ni wax lu dul dëgg macha allah yu garaaw yooyu macha allah lekk lu la lewul comme noonu ak si di kem nee boo bàyyi yooyu xëy na yenn saa yi di rëcc rëcc am macha allah mu tax Saïd ibnu Jubayr nee na dafa am ku laaj Abdullah ibnu Abbas ni ko kon daal bàkkaar yu rëy yi juróom-ñaar la mu ni ko dem na ba juróom-ñett téeméer waaw Abdullah ibnu Abbas ni ko yàlla def la tuddal juróom-ñaar yi rek pour nga mën ko dégg waaye dem na ba juróom-ñett téeméer mu ni ko walakin laa kabira ma istigfaarin wala sagira ma israarin boo demee ci xurtu bi di nga fa fekk lii macha allah mu ni ko waaye gis nga bàkkaar yi li muy rëy rëy rëy nee na bu àndeek istixfaar bu dëggu rek dootu fa taxaw nee na bu àndeek istixfaar jéggalu sa borom bu dëggu rek nee na bàkkaar ba lu mu rëy rëy dootu fa taxaw day dem waaye nag na dëggu ñaareel bi mu ni bàkkaar bu sew amul bu fekkente ni yaa ngi ciy sax day day bari léegi day bari léegi ah non yii yu ndaw la rek yu ndaw waa yu ndaw ba pare nga sax ci rek muur ci rek tëw tëw bàyyi ah ba mu yàgg koo fi gis mu mànd ci benn guux la doore woon ma ni koo fi gis mu mànd bay këying këying ci benn guux la doore woon koo fi gis mu njaaloo ci benn baraay wala naan naa ko teg loxoog naa ko fóon la commencé woon ba mu jural ko ko waaw koo fi gis mu def loolu lii la bari na yeneen nit nag hmm, bari na koo xamante ne ndeysaan mu ngi ci tali bi di dawal di daw ndànk ba si yàgg xeeb li muy daw du yokk du yokk ba xëy yàlla ma nattu dal ko ca ci accident wala lu mu mën a doon kon mbokk yi di accélérer rek di dem baaxul de kuy ne woon ci bàkkaar yu sew gaawal génn ci waaye bu ci continuer di accélérer rek te daal non non yi yu sew la rek ko waaw yu sew la du du doon de du doon de waaw damay wax ni boo déggee wolof naan euh, kuy jaay Dakar su amul fayda mam ñam je da koy jeexal mooy loolu mooy toog rek yor sa yu daqaar di jaay kenn ku ne ku ñëw xool ah waaw mu affaire ma mos benn mos dem te du jënd bu yàggee dootoo desee dara de lu mu bari bari bari kon nag mbokk yi bàkkaar gaaw génn ci dafa baax tey borom bi subhanahu wa taala mbokk yi doore tafsir bi ci lu am solo ci lu am solo macha allah mooy di wax nit ñi nii nañu bàyyi mébét yu rëy yi ñuy nekk di ko def nañu bàyyi mébét yu rëy yi nga xamante ni moom la ñu nekk di ko def dañuy wax ni Mujaahid nee na Ummu Salama moo laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam bis ni ko ñun de wax dëgg yàlla góor ñi moom yóbbul nañu ko ndax ñu ngi xare ji te ñun mënuñoo xare ji waaw te it genn wàll la am ci miraas ñoom ñu am entier waaw loolu moom wax dëgg yàlla am lu mat ak yi kemam wax yooyu yàlla ni yonent bi yàlla tontul ko boppam ci alquran ni ko nee leen wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadukum xam na ñu ni looloo tax aaya bii wàcc borom bi subhanahu wa taala ni wala bu mu mébét maa faddala allahu li yàlla dafa ngëneel bihi ci ci yéen baadukum lenn ci yéen ala baadin ca gese des mooy lan mbokk yi mooy nit du ñeetaate nit koo xamante ni lu nit am rek moom nga tëg bët eh, yàlla nee na bu leen def loolu bu leen def yéen jullit yi lépp lu yàlla jox keneen rek ngeen ci seen bët ba fàtte lim leen parce que nee loolu bu yàggee day yu day jëme nit ki ci iñaan ak mbañeel ak lu ne tax ndax Jean Chadini day wane nii tere nañu iñaan waaye ak di mbébét lu nit am rek nga defee ni yow loolu yaa ko war a mooy ñeetaatekat yooyu nga xam ne ndeysaan loo ñu am gisatuñ ko am nañu yàlla nattoo lool ñoom lu keneen am rek yow nekk ci béréb di liggéey di ràmpe ndànk-ndànk ba ñu xëy def la directeur adjoint yow sa xel yëpp <laughs> non man daal vraiment ah nan lañ moom fi mën a bàyyi di jël kii di ko def directeur yow yaa ngi ci ministère bi yaay chef de cabinet ministre bi wala yaay directeur de cabinet wala conseiller nga foofu nga toll sa bët yépp nga jël ko teg ko ca bëtu bëtam bëtu poste sam boobam mu yor loolu it baaxul ñeetaate baaxul ñeetaate noonu nga koy toppe ba am na koo xamante ni fii mu toll nii yow daay bii nga xam ne yaa ngi wax ñu lay déglu moom xoolatul ni sax daawaam bi muy def mu ngi koy def ca fa mu fa mu tollool muy dem mais day jël bëtam yëpp teg ko ci yow loolu baaxul yooyu yëpp ay xeet la yoo xamante ni amul njariñ ci lislaam nit du ñeetaate nit du ñeetaate soo amee bis mu réussir sax xol ba am lu mu yëg noo wax dëgg yàlla kii noo bisam bii moom kii moom am na lu mu àndal àndalu di la cat wook di wax rek nag kenn xam kenn du xam yàlla nee na bàyyi leen loolu nit kenn ku ne li nga am na nga ko doyloo nit ak ñii koo xamante ni yàlla may na ko kër gu mu dëkk tabax na ko tabax bu baax am na fa néegam yu doy mu nga ca njabootama nga fa xatu ñu xat nekk ci dans de très condition di añ di reer di ndékki di fay courant di fay ndox di fay seen téléphone di fay seen internet une vie très paisible dund waaye gis nga day taxaw ci buntu këram di xool borom étage ba non vraiment man xaw ma nag nu may def ba yëkkati fii benn étage non xoolatul sax nii fii de mu ngi ci condition de gis nga bu ko yàlla may ba mu yëkkati benn étage falay ba benn étage am moom di xool ki am deux étage non gis nga bu ma tegaatoon bee xam ni damay luye yi bu tegaatee booba trois étages lay xool rek gis nga bu tàyyee ci xool étage xam nga lu muy xool yeneen i kër non mais sa waay affaire am baax na sa waay li mu yor ci ay kër waaw par bak loolu mooy lan li mu yor ci ay kër ma ni loolu mooy lan ah ban signification la am na fexe ba këram yu bari yooyu mu yor na fexe ba bu guddi jotee na ci fu ci nekk rek na fa tëdd jóg tëdd ci këram gi jóg jamaat beneen këram tëdd jóg jamaat beneen kër man la sa kër sax mënoo tëdd ci néeg yëpp waxuma la nag ay kër mais yow au lieu nga gëm yàlla ci li mu la jox nga doyloo ko ndax alqanaatu mu gis nga doyloo mooy magasin bu dul jeex bu mukk waaye yow da ngay jël sa ba teg ko ca kër kër euh, bu changé oto sax yow yaa ngi woon ak sa oto otoom bu taalee yónni ko fa muy dem day dem yow sa oto boo taalee yónni mu dem waaye ah non vraiment non mi boo gisee gars yi xeeti oto yi ñu yor yow fàtte nga ni sax yoroon ko oto yooyu moo baaxul nit nit kenn waxul nit bu mu am ambition de mais ambition démesurée baaxul koo xamante ni moom bu nit am rek lay xool dama ko yóbba ci jigéen ñi jigéen ñi yoo xam ne kenn mënu koo jëndal dara kenn mënu koo jëndal dara parce que loo ko jëndal bala mu ko sol sax gis la leen xeeb ko waaw toog ci mbooloo sol yére keneen sol nit ñi di tudd kooka rek de ah yow sa sañse bi rafet na fàtte na ni moom sañse woon na non xoolal rek non man daal vraiment jël bëtam yëpp teg ko ca mbubb ko bu doonoo wax sax wax wal wax ba lay xool boo même bu soloonu basin riche nit ñaw jël benn vaxam ñaw ko ñaw bu rafet donc ñëpp naan ko sa wax bi fii de fàtte na ni sol na basin xelam yëpp mooy nu muy def ba ut am ca ca wax boobu mooy nit ñooñ nga xam ni dañuy ñeetaate fu ñu toll yàlla bëggul lool nag tabarakallahu suñu sëriñ bu baax ba suñu Habib Sarr daan na ko firee nii ñett am iñaan iññetti iññañeñ mu ne iñaan mooy ki nga xamante ni moom lañu ñu euh, kii ñeetaate ki nga xamante ni wax dëgg yàlla lu nit am bëtam yëpp mu ngi ci man damaa war a am comme li kii am ki iñaan nag moom da am dara mu ni noo kii daf daf ko ki iññetti da am dara mu ni noo kii daf ko war a ñàkk man ma am ko ki iññañeñ ñi nag moom danaan moom na ko ñàkk même bu ma ko amul sax na yàqu oto bu rafet bi ñëpp di ko coow kii daal bu ma sañoon na génn dóor ko ci garab mbaa taseeg oto mbaa am oto bi na yàqu rek même man su ma ko amul moom ba mu ko am mais yooyu baaxul yooyu yëpp nag li li koy buntu bi koy ubbi mooy buntu ñeetaate moo tax yàlla ni man naw bu leen xemmem bu leen mbébét maa faddala allahu bihi baadukum ala baadum li yàlla def ngëneel ci ñenn ci kaw ji si des ci ak joxeem ak dogalam ak lu mu mën a doon góor ñi yàlla may ñuy xare ji yéen jigéen ñi loolu bu mu fees seen bët ndax góor ñoo ñu di xare ji yéenay seen yaay yi góor ñi ca jàkk ja di imam yi yéenay seen yaay góor ñi président yéenay seen yaay yi góor ñi premier ministre yéenay seen yaay yi góor ñi dooni directeur yéenay seen yaay yi góor yi dooni boroomi xam-xam yéen leen jur kon loolu bu mu leen yéemati bu mu leen yéemati mu ni nag lir rijaali nasibu mimma ktasabu mu ni góor ñi am nañu cër ci li ñu fàggu lu leen ci yàlla di fay am nañu mu ne waaye it wali nisaai nasibun mi maktasab na ñi ne jigéen ñi aussi am nañu cër bu yaatu ci li leen yàlla fàggul ci li ñu fàggu am na lu leen ci yàlla di fay góor gu liggéey yàlla fay la jigéen bu liggéey yàlla fay la loolu rek la la bëgg wax góor bu liggéeyee la mu war a liggéey yàlla da koy fay jigéen it bu liggéeyee yàlla fay ko waaye it nga dégg ci nag bu desul it lu dul miraas kenn ku si nekk la nga ca war a am rek nga koy am li kullin min al fariqayni fil miraas nasibun ma'ayyanul miqdaar moom am na ñoo xam ne noonu lañ ko déggee dañ ko féetale rek ci miraas wane ni góor li mu am jigéen lu mu lu mu am waaye boo demee ci sëñ daal jaridu yi moom dalay wax ni la kullun lahu jazaa'un ala amalihi bi hasbi in kaana xayran fa xayr wa in kaana charran fa charr moom noonu la ko wax ku ci nekk di am fayul la nga liggéey nee na su dee lu baax nga defoon di nga am lu baax bu dee safaan nga defoon di nga am safaan jeex na bu dee góor ñu fay ko la mu def bu dee jigéen ñu fay ko la mu def mu ni wasalullah min fadlihi nee na su ngeen di ñaan ñaan leen yàlla ci ngëneelam ngir mu may leen nit muy ñaan na doyloo yàlla ñaan ko waaye bàyyi fi yàlla topp nit di tuur sa dignité sa personnalité te yonente bi alayhi salatu wasalaam ni utlubul xawaaija bi izzati nafs fa inna al umura tajri bil maqadir nee na mbir yi ngeen di sàkku sàkku leen ko ak personnalité ak dignité bu leen tuur seen daraja ak seen maqaama ak seen fulla ak seen fayda ngir bëgg lu nekk ci loxo doomu aadama loolu bu leen ko def ndax mbir yi yàlla dogal na ko ni mu ko dogale ba pare li nga war a am kenn mënul tee nga am ko bul doyee di ci amin bi am ko ak forte personnalité di da ngay am personnalité am dignité parce que kii joxe yàlla booy ñaan nag ñaanal yàlla wasalullah min fadli ñaanal yàlla ci la mu may la mun inna allaha nekk yàlla kat kaana mësula dañ di nekk bi kulli in ci mbir mu mën a doon aliman di aji xam ko xam ko amul fu mu yem moom borom bi subhanahu wa taala nee na yàlla mooy ki xam mbir yi xam ni mbir yi war a tëdde moom suñu borom subhanahu wa taala mu ne wali kullin ku mu ci yéen ku mu képp ku mu ci ñun jaal naa mawaaliya mimma taraka al walidaani wal aqrab nee na nit ku si nekk rek def na la ngay méngoo mbiru li nga xamante ni jur yi bàyyi nañ ko fi wala mbokki jege ñaale yi kenn ku ci nekk am nga loo ci war a donn muy góor am na lu muy donn muy jigéen am na lu muy donn ñu war a doon moom ñu ngi fi te kenn ku si nekk am na lu mu méngoo ci mbir aaya bi ñuy war a jàng nag muy lii mottali aaya bi muy a aqadat ay aymaanukum fa aatuhum nasibahum mooy lan mooy ñi nga xamante ni da ngeen fasante woon ak ñoom ak kóllëre nee na ñoom it nañ leen jox seen cër walladina aqadat aymanukum fa aatuhum nasibahum nee na ñi nga xamante ni kat dañoo fasante woon ak ñoom kóllëre ni wax dëgg yàlla arab yi daan daan def loolu di mel ak nit noo xamante ni bokku leen ci dara waaye nga doomoo ko wala ngeen def ko lii wala ngeen am kóllëre gu yàgg ba nga ni ko da nga may donn mu lay donn jamono yoola yàlla ni fa aatuhum nasibahum nañ leen jox seen cër avant yàlla di folle aaye bii ci miraas lii la woon waaye ba miraas ñëwee ba séddale mbir ma nag loolu la aaye boobu dafa dàqooti kenn doon na sa baay doon na bàyyi jàmbur kenn du donn sa baay donn baayub jàmbur euh, moo tax mu ni fa aatuhum nasibahum jox leen leen seen cër yi boo demee ci xasan da lay wax ni la arab yi dañ daan def loolu nit nit wax dëgg yàlla ni ñuy mel daal suñu diggante rafet na rafet goo xam ne boobu ñu laxasoo ay góoj rek waaw ñu nag yow daal danga may donn ma lay donn yow daal benn lañu <laughs> yàlla nag ni du noonu de mu ni jamono yooyu nag loolu la waxoon ba yàlla wàccee nag wa ulul arxam baaduhum awlaa bi baax nag si la mbir mi dàqoo kenn ku nekk di doon ka nga war a doon mu ni inna allah naka yàlla kaana masula dañ di nekk ala kulli shay'in ci mbir mu mën a doon shahidan di aji seede ca moom borom bi subhanahu wa nee na borom bi subhanahu wa mooy kii seede ci mbir yépp moom borom bi subhanahu wa taala yàlla mooy seede ci mbir yépp inna allaha ala kulli shay'in shahidan mbir mu mën a doon yàlla mooy ka ca seede moo xam ne mbir ma tëdde ak na mu demee moom suñu borom subhanahu wa taala keneen xamu ko mu ñëw nag ci beneen aaya ma sha allahu aaya bii dañu wax ni jële nañ ci saad ibnu rabi mu nii dafa am benn waaye ci waa lansaar dafa jote ak soxnaam soxnaam soosu macha allahu dañu wax ni Saad ibnu Rabia ci boppam moo jote ak soxnaam soxnaam mu ngi tudd Habiba bintu Zeyd wax ja tàng ñuy werante juyoo ci kàddu mu mbéj ko ah mbéj mu tar ndaw sa tafi noppam yuuxu dem ca baayam waa jëkkër damaa yitt dafa maa dóor ba maa ngi nii ah papa ji mbir mi metti ko nag mu ànd ak doom ja ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko kii de dama ko may sama doom masha allah bu soxnaam amul lu muy def lu dul mu koy dóor ak a mbég di ko torox yonent bi sallallahu alayhi ni nañu indi waa ngir mu fayu ngir ndaw si fayu waa dama ko bëgg a teg ci yoon àtte leen day fayu yàlla wàcce ni ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa lu jar a bàyyi xel la nag ci explication yàlla wàcce aaye bi ni góor ñi wax dëgg yàlla ñooy kilifay jigéen ñi ñooy kilifa ci seen soxna yi kilifa nag doo doon lu ñuy wax rek lu ñuy jëf lay doon ca lépp lépp Eh, bi loolu amee <clears throat> yonent bi alayhi salaatu wasalaam plié wu ndax alxuraan wàcce ni arad naa amran wa araada allahu amran walladi araada allahu xayr mu ne ñun de namoon nañ mbir nii laa ko bëggoon a doxale yàlla namm leneen lu bokk la li ma namm te la yàlla namm mooy dëgg kon nag ànd nañ ca yàlla mu ne kon ar rijaalu góor ñi na ala nisaa i ñooy jubbante jigéen ñi ci di diggal di tere ci dépense bi ñu leen war a jox ci sàmm bi ñu leen war a sàmm aar bi ñu leen war a aar léppi loolu góor la war ci kaw jabaram waaw ah, waxul rek arrijal xaw ngay toog naa maay seen kilifa di aji mbagg ak aji déedéet loolu da koy comportement ah, si ni ngay doxalee si la ñuy xamee ndax yow mat nga kilifa li nga war a dépenser ci moom de ko dépenser ni nga ko war a jubbantee de ko jubbante ni nga ko war a xiire ci diine de ko ci xiire ni nga ko war a xiire ci ngor de ko ci xiir ni nga ko war a jàppalee bu baax daal loolu boo ko boolee mooy ar rijalu qawwamuna ala nisa bi ma faddala allahu baadum ala baadin ci li yàlla def nga ngëneel lenn ci kaw ñenn ñi ci mbaaxam moom borom bi subhanahu wa taala wa bi ma anfaqu min amwali ak ci li ngeen di dépensé seen alal jëmale ci jigéen ñooñu waaw nee na kon looloon mu jagleel ko góor ñi ni responsabilité la kon ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa ku ko dégg xam ne responsabilité la ci ni nga war a protéger ndaw si ni nga ko war a aare ni nga war a dépenser ci moom ni nga war a defaraate yaram bu fekkente ne am na yu ca naqari loolu lépp nag macha allahu ay ngëneel la lu yàlla def moo tax mu ne la wa tafdilu bii bi yàlla wax bima fadal allah boo demee ci abu saud da lay wax ni la ndax mat gi góor ñi war a mat ci seen bopp yi maturité bi ñu war a mën a àndal ak xel mu ñor mi loolu la yàlla boole pour wax lii ñoom la ñuy def yonent ñoom ñooy imaam ya macha allah ñoom ñooy yor yenn responsabilité gis nga nag lii nii yenn saa yi gars yi coow rek waaye coow li coow li gars yi dañuy wax rek waaw góor ak jigéen dafa war a yem parité lii parité lee waaye xoolal àdduna ñaata réew fi ne nga génneel ma ñaata président ñoo fi am génne ko rek kon démocratie yi gën a rëy sax dañuy wax wax ju bari bi am na loo xam ne du duggaguñ ci wala Amérique Amérique ak fañ toll ci démocratie mu ne bi élection yi di jub ñëpp jéggoon nañ Hillary Clinton ak riir ma mu amoon ak yëpp mais pare wu ñu woon pour fal ko France gi mas nga faa dégg présidente mu ngi fii demal ci yeneen i réew demal ci yeneen réew doo ko fa dégg am na foo xamante ni duñ ca yegg ak seen coow lu mu bari xëy na nag avec le temps dinañ man man nañ fa yegg euh, ma ubbi buntu boobu nag waaye fii mu toll seen coow li coow li coow li am na foo xamante ni daal ñemeekuñu dañ koo ñemeeku borom bi subhanahu wa nag ni loolu yàlla moo ko def léegi nag yàlla di la wax jigéen ñu baax ñi mooyoon mu ni fas saalihaatu jigéen ñi nga xamante ni daal dañu yiw doon jigéen ñu baax yiw qaanitaatun doon ñoo xamante ni ay jaamukatu yàlla lañu ba pare mën a déglu mën a wéy ci ndigal xaafidaatu lil xay bi mën a sàmmal seeni borom kër wattu seen bopp wattu seen alalu borom kër ginnaaw ba ñu fa nekkee ba ñu fàddoo bi ma xafidallaahu ci la yàlla sàmmlu ca ñoom ñu sàmm ko bu baax a baax a baax nee na ñii daal ñu baax mooy tafdilu li xaali nisaai taxta riyaasati rajul yàlla ba mu waxee ba pare dafa tàqale nag jigéen ñi wax la ñaari xaaj lañ am na ñoo xam ne saalihaat mutiaat dañoo sel dañoo yiw ba pare di déglu ndigal di ko topp am ñoo xamante ne aasiyaat mutamarridaat ñii moom noo seulement dañoo dëng waaye dañoo féttéerlu ca dëng googu continuer mu ni nag jigéen ñi nga xamante ni dañoo yiw ba pare di dégg seen ndigalu jëkkër di taxaw ci seeni wareef yi ñuy war a def di sàmmal seen alal seen bopp seen jëmm ba du ñu njaaloo sàmmal seen boroom kër seen alal ba ni mu war a nekke ba pare nag xaafidaatun lil xaybi bi ma xafida allah téye seen jëkkër seeni secret ba kenn du leen xamal dara macha allah nee na ñooñu ñooñu baax ña macha allah du ñu def macha allah lu ñu seq ak seen jëkkër toog ca mbedd ma di ko weer ak bii nañu def ak ba ma ko jàppeeg nii la def ak ba mu fa ñaaw yooyu nee na baaxul boo demee ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni ki gën a yées wàccuwaay yowmal qiyaam mooy góor gu seq ak jabaram wala jigéen bu seq ak boroom këram xëy di nettali nam ko defee loolu dafa ñaaw yonent bi ne loolu lu bon la mooy yaa ngi fekk loo wóoroon a nëbb nga koy feeñal waaw mu ni kon góor bu seqee ak jabaram warul toog mukk di ko def te loolu dafay dafa mel ni benn xew-xew la boo léegi boo xam dafa xew waaw da gis ñoo xamante ni bari na jigéen ñi fuñ lay wax naan la suñu tuuru mbaxal ma ñu am ak tuuru tuuru li du tuur dara du dul toog wax wax ju bon wax joo xamante ni souvent nañu séq ak seen jëkkër kenn ku ne di feeñal sa moroom baaxul ay góor it ñu ko def de toog ñoom it kenn ku ne naan nii ba ma se sama jabar lii laa séq ak moom nii lañ ko defee ak yooyu yëpp dafa xaraam ci lislaam yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo ko xadis baa ngi wér ceng mu ni mu ko gën a yées wàccuwaay yowmal qiyaam mooy góor gi nga xamante ni seq na ak jabaram wala jigéen ji nga xamante ni seq na ak boroom kër kenn ci ñoom génn di feeñal secret moroomam nee na kooku pol la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam loolu it muy lu am solo lu jar a bàyyi xel macha allah muy lu am solo muy lu jar a bàyyi xel it macha allah comportement daal jëkkër ak jabar dafa war a doon comportement bu noble waaye dafa war a doon comportement bu yàlla gërëm war na doon it comportement boo xamante ni kenn du ca gis nit ku nekk ca loolu nga koy xeeb waaw kon euh, góor a ngi di dox fekk ni kenn respecté tu ko te dara waralu ko lu dul jabaram góor a ngi di wane fulla di wane charisme di wane personnalité aura bi mu am yëpp am yoo xam ne xoolal jàppewuñ ko dank mbuum te dara waralu ko loolu dul jabaram jabaram moo yor làmmiñam di ko waxal jigéen a ngi it am personnalité am dignitéem ku mu romb nga respecté ko waaye am na ñoo xam ne xoolal xoolewuñ ko daara jàppe wuñ ko ku am solo ndax lan jëkkëram ak làmmiñam fu mu toog <laughs> ndox xam na ma kii di wax wax yu bon yoo xamante ni rafetul l'islam gërëmul loolu sëy dafa war a am sutura sëy dafa war a am sutura sa jëkkër bu ñàkkee dépense sax nga weer ko mu ngi nii de di lëgër lëgër di taxawaalu dara dara laa la wax dépense sax joxewu ko fi ku ko war ta xam di ko xam ku ko war ta xam di ko xam comme góor it sa soxna dem marché xëy na marché ba sax neexul mitti na mu góor góorlu ba indi lu mu mën a togg teg mais loo xamante ni kenn xamul li nga togg lal la ci kanamu nit ñi sutura dafa baax ci diggante góor ak jigéen sëy dafa doon lu sacré loo xamante ni du ku nekk ci war a am accès du ku nekk ci war a am accès waaw kenn warul libéré noonu sëb sëy ba kenn ku nekk macha allah di ci am kàddu yu muy wax macha allah ak di ko waxee noonu lu ko neexee yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla defal dégg yàlla nañ defal topp macha allah di ziare nag mbokk yëpp rek ndax waxtu wi ñu am tàgg nañu ñu teg suñu baaraam foofu bu ñëwee sof li nga xamante ni sa son nañ ko waaye rek di wax ni comme ñi ànd ak ñun ci liggéey ñuy def rek macha allah samedi bi incha allah bu leen fàtte comme ni ko waxee gàmm gi waaye nag ñun ci góor gi dinañ nekk fii rek ci wakaam comico cité comico macha allah conférence ba nga xamante ni moom lañu fay defal soxna yi tedd yooyu macha allah ñuy waxtaane foofu dialogue islamo chrétien macha allah ni mu war a doxee ci suñu diggante yi muy jabaru militaire yi foofu soxna yi militaire yi foofu ñoom lañ koy defal macha allah yàlla yàlla may ñu fekkee ak tal barke alquran kër boobu ñu ngi ciy invité ñëpp bu ñu fa jógee rek nekk ci gàmmu gi waaye nag di wax yi nag gàmmu gi nag incha allah xadratul jumaa ba ci ajjuma yi bëgg nañu ñëpp fekk ko waaw kooku ñu ngi ciy invité ñëpp ci ci xadara bi yàlla nañ ci yàlla defal dégg yàlla yàlla nañ yàlla mottali lépp rek barke alquran alkarim allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna ittibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba wala tajaalu multabisan fii naa wa jaalna lil muttaqiina imaaman wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu